loolu lu yàgg la problème mu Casamance bi jafe-jafe yi depuis nguuru Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba jamono ji président Macky Sall mais damaa jàpp ne bu ñu bëggoon mu jeex jeex na politique yi ñoo bëggul mu jeex rek ngir mu Casamance politique bu ñu bëggoon mu jeex jeex na parce que ay intérêt lañ fa am dañ fa am ay intérêt état yi dañ fa am pour man président Barrow bi muy toog ci pouvoir bi Macky Sall def lépp daj lu ne toogloo ko jàppale ko ba mu defee prestation serment fii Sénégal fii si dakaar fii Sénégal fii Dakar mbir mi doon na gën a yomb wala dina ci jouer partition il est temps ñu régler problème population yi ne foofu dañu war a am seen affaire dund wante état bi kenn ñu des am na ci dëkk yoo xam ne boo fa demee. ñoom ils sont laissés en rade boolewuñu leen ci les politiques publiques ñeneen ñi mënuñoo am kayit mënuñoo am njàngum Sénégal mënuñoo am amuñ benn infrastructure sociale de base bi mën a faciliter seen vie seen cadre de vie. état bi yemu ci am ci ñoo xam ne tamit way takk der yi ñu war leen gën a gunge góor dooleel leen boo demee ci dans la zone sud wala ci yeneen camp yi ci àll bi ci frontière yi. je me suis un jour au niveau de jaaxa Djamilé c' est dans la région de Kédougou. presque frontalier euh, avec le Mali mais ñi nekkoon foofu dañoo mujj jël ay sàkket ay bant defar camp parce que mu ñoo xaar parce que population yi foofu ñu amoon benn problème pour camper la situation ñu def fa camp camper fa def fa def liggéey fa mais ils ne sont pas bien payés ils ne pas motivés te dañ leen war a gën a dooleel ku nelaw ba yandoor ci xew bu Sénégal da war nga wax gàcce ngalama santal bu baax suñu way soldats jàmbaar dëgg la kon état nañ jël ay moyens dooleel leen jox leen jumtuwaay jaajëfal colonel Souleymane euh, mi nga xamante ni Kandé def na liggéey bu mucc ayib ci opération yooyu te nañ ko wéyal askan bi quatre zone yooyu ñu jël nañ wéyal fexe ba récupérer base rebelle yëpp askan bi nekk seen jàmm parce que rebelle yi tamit il est temps ñu jàkkaarloo ak ñoom wax leen dëgg dafa war a jeex nit ñi am jàmm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 ak bitim réew. am lépp tawfeex sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi.